sama kaddu bu njëkk bi mooy nuyu population Goudomp nuyuwaale képp ku yeewu ci département bi ndax euh, euh, lu lu yëngulu lu ne lu ko yëngale ko pot doole donc tey ñun ñoo nekk ci list bi nit ñi sonn pour ñun dinañ ñaanal jàmm ak tawféex euh, élection bi aussi may ñaan mu déroulé si jàmm gis nañ mhm. euh, appel bi may woot bi may wax mooy population bi ñu fexe ñu génn parce que lu bëri tendance bi dafa faral di xaar bu naaj bi tàngee ñeneen ni bu ñu añee ba pare parce que paraat peut dañuy xalaat ne heure boobu la ñuy nit ñi mbumbaay bi heure boobu lay bëri daal defee ku nekk pare na sa liggéey donc heure bii ñoo xam ne ñoo am jot ñoom dañuy ñëw voté rek ñibbi. ñeneen ñi dañuy xaar ba bëccëg bi nga xam ne day fekk pare nañ seen liggéey ñu ñëw bu ko defee bu ñu votee ñu toog xaar waaw. am yaakaar naa yaakaar bu baax a baax am naa yaakaar waaye damay ñaan yàlla rek lu gën ci jaam rek yàlla def ko waaw.